madame benn question mooy teel ba ma jégalee moom da ngeen jàkkaarloog benn projet boo xamante ni. ñu mhm. toog yéen a bokk ni ngeen doon politique yi. Mhm. ndax ku la xam xam a Moustapha référendum bi. Mhm. ak 2019 bi. joué na si loolu mais par ay audio wala bon nu ñu ko mën a defee bi noonu noonu. lay noonu lay politique yi tamit am ay voix. est-ce que pare ngeen pour contrecarrer yooyu noonu. communication bi bi xam ne moom xam nga boo dee xool Yewwi système bi mu jël ci ni muy communiqué ak ñun souvent bi ñuy bi ñuy communiquer bokkul parce que ñun bi ñuy communiqué dañ doon communiqué ci ay principe dañoo bañ benn affaire indi nag luy justifier ne lii moo tax ñu bañ ko. bu dee ci cadre Yewwi ñun dañ naan dara amu fi ñun mosuñoo wax dara amu fi man mosuma corriger président Macky Sall ci bilan ne dara amu fi. duma laal bilan mais mën na ma ko commun mën na ko corriger mal gouvernance wala ay nitam barki démb bi ñu demee ci palais ba maag Abdoulaye mi ñu toog dama ne ko aw ma yow problème mësuma la attaqué aussi ci bilan mais dinaa la attaqué ci ay responsable ak nit ñu bon yoo bàyyi ci suñu ginnaaw ta nga bëgg ñu wéeru ci suñu ginnaaw loolu bu fekkente ne toog na ma moom mi président de la république mu ut ci solution wax ñu dégg mën na maa taxaw ci jaar ci loolu wax ne lii kat mën naa am solution dana ci am moo tax man bi ma jugee man amut ku ma ci waxal ci ñoom dama dem ca ndeyi mbil ga toog ak moom wax ko ne ko lii mooy suñu programme ak suñu ambition pour ñu jàppale la it fii la ñuy jaar sa dëkk dëkk ba bañ nekkee département Mbacké muy 14 communes muy 16 commune dagg nañ biir tu commune Touba ay ay zone ñun xamuñu zone parce que bokkuñu ci zone suñ structuration parti mooy ñu ñu dugg ci zone sa parti nag moo jaxasoo moo toj ay gaal kenn ku nekk sa ruq bopp ñu def ko ay zone def d'occupation dëkk bi léegi ñun bokkuñu ci loolu foo ñuy def man loolu moom yóbboon pale su ma demoon ba aw ma accord ak tontu bu leer ci loolu mën na maa ñëw rancé waat comme na ma defoon kon man nag opposition ñu gis-gis bu ñu def parce que lu bari ci opposition bi yaa ngi gis ne ñuy tiré mais ci semaine bi ñu bari dem nañ pale semaine may wax yow am na ñoo xam ne yaa ngi leen gis ci cortège opposition bi dem nañ pale ci semaine bi te doo leen gisaat ci convoi yi kon bokkuma ak ñoom principe ñi ngi ànd ak seex Abdou ànd ak Cheikh Thiorony yàlla mi amul kumpa xam ne dem nañ pale am nañ oñas xëy na maa bañ a tudd seen mais fii may waxee yow dem nañ pale am nañ audience lañ war a jot it jot nañ moitié bi di xaar moitié man bi ma demee pale dërëm topp ma fa parce que ay principe moom fa yóbboon kon man bokkuma ak ñoom euh, facette bu ñu war a communiquer maanaam coquille vide la àndal kokki vide ñu baree bari ci ñim yaakaar ne dañ koy jàppale fii may waxee barke alxuraan laay waatal gis nañ Macky Sall te fi mu dem doo nga leen dese te doo ñu ci sa na loolu mën nañ cee wax ma nag yow ma indil la ci preuve ak ay images mais doon loo xam ne xay mën naa ko tudd ci li ñoom bu ñu defee déclaration lépp dana mën a leer.